tey bu nekkoon feneen pour Ndar sax jaral nañu dagg bee fekk si ko ndaxte jaral nañu ko ndax ñun suñu amee programme muy gàmmu Mbambilor muy si gàmmu Sëriñ lam fay def wax dëgg yàlla ñu gis nañ ko mm-hmm. te yéen waa groupe yëpp seere ngeen si mm-hmm. dina jël alalam def si dina jël xalaatam def si mm-hmm. dina dajale ay njabootam jógee fii nii ñëw ba Mbambilor ndax la ndax programme boobu kon kooku sagal nañu suñu groupe bi nga xam ne tey ñun ñoo ko tuddee def ko muy suñu yaayu groupe. Mm-hmm. wéccu ko benn yoon ndax dafay duggee si groupe mm-hmm. bu waxee rek ñu ñu jariñoo si. ñëpp bëgg ko rek te yàlla tax mm-hmm. groupe boobu nag ñoo la fekk si fii nii di am kontante ne tey suñu amoon sax ñun ay milliards. gàmmu gi fekkoon am nañu. xaalis ñu naan la toogal ñu gàmmu gi ñu def ko ndaxte yow yéene nañ la lu raw loolu xool yi yàlla moom moo si nekk ba fees te yàlla nag moom moo ëpp lépp yàlla nag moom mooy maye yàlla lim ñu may mu néew dayle nañ ko billaay wallaay wa taala lu néew la lu tuuti indi ko ngir teg ko sa ngir wan la ne ñun am na nañu yéene waaye billaay li nekk si xool yi muy yàlla moom moo ëpp lépp te yàlla moom mooy defar lépp ñoo ngi lay ñaanal yàlla bu baaxa baax di kontaan si ànd bi nga xam ne ànd nga wax ànd nga wax ñun si groupe bi rafet na lool ñoo ngi lay ñaanal yàlla programme bi nga xam ne yaa ngi koy def programme bi yàlla na dem ba fépp foo toog si àdduna da koy dégg surtout yegg fu nekk ndaxte yow mayte nga ko te liggéeyal nga bàyyi si. damay waxtaan ak. yow. macha allah. ñëpp nañu waxaat jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ñu ngi sant yàlla bu baax di julli si yonentaam salallahu alayhi wa sallam di ndokkeel xalifaam Cheikh Tidiane di ndokkeel xalifaam ji kontaan si teew bi ngeen fi teew te sunu mënoon jooy sax dañuy jooy ndax bëgg dafa diis ndax xol boo xam ni yàlla moo si xaj nga jël nga xajal si doomu aadama ko desee lootu nit ki dara danga desee lootu nit ki dara da ngeen dépense seen xaalis jël oto fay ko deux cent cinquante mille ngir lan ngir Saint-Louis ñëw ngir fekkee programme programme kan jàmbu xew bi man benn mbaamu bàyyi laa boo xam ni bàyyi ma teg tànk bu teggi woon rek xëy na leneen am waaye bu tànk bi ma teg maa ngi sant yàlla di ñaan toujours may gën doon di mbaamu may teg tànkam loolu laa mérité et eh, ñëw bi nag dama ci kontaan li tax ma ci kontaan mooy da ngeen ko waaj def publicité da ngeen réunion da ngeen def ay cotisation def leen jaral lu ne sëriñ bi moo bis bi jaral ko lu ne fu mu si jataay publicité jour gàmm gi le quinze le quinze le 15. su jógee sax mu tooy Cheikh Tidiane mu ni ko taaw am na oto waay bëgg na oto bi fees dëgg la wala mu ni Paali Ndiaye am na oto bëgg na oto bi fees te wane bii rek ànd bi ngeen ànd rek mooy wane rek ni li li bàyyi di wax rek ni maa kaane lillaahi daama wa tasal maa li xayri lillaahi xata wa tasal ànd boo gis mu yàlla rek day dëgër te da ngeen ànd te yàlla tax ànd boo gis bu si yaama ni génnee maa ne li maane la génnee kooku ànd boobu yàgg te soppe Cheikh Ibrahima daf gis nu ko si bi ngeen may jël di ma def seen yaayu groupe xaw ma leen xamu leen ma Mbaye Diouf jël ko def ko yéen ñëpp ngeen nangu ko te yàlla tax Cheikh Tidiane sal njëkk dugg fësal lool yéen ñëpp ngeen ànd ci topp si yaay boo xam ne amul xaalis amul doole amul xam-xam rafetul ñaaw na amul benn xorom kooku lu leen koy yaayoowe xëy na bàyyi tax su doon jëmm jëlee la bëggu leen ko waaye bàyyi ngeen gis man la waa ji waxoon diw de bëgg naa fa jabar wala diw nob na ma waaye nag kenn nobu la man la nu bëgg fii ma la teg bu ñu fa tegul xaj sax ñu bëgg ma kon kenn bëggu la man la nu bëgg waaye yéen bëggu leen bàyyi ngeen bëgg xool seen xool xam ne kii bëgg na Baye Niass ngeen jortu ci moom loolu ngeen bëgg ma ngir Baye Niass waaye bëggu leen ngir leneen parce que amoon xaalis bu ñu leen defal kon yàlla na yàlla fay leen yàlla na yàlla taxawu leen yàlla yàlla sàmm leen yéen a xam li ngeen bëgg yàlla na ko yàlla defal lii nag ngeen indi tegulu leen ko te it sasuñu leen ko te it xaaruñu ko ci yéen li ma xaaru ci yéen mooy ngeen ñëw ngeen dundal ambiance bi ñu kontaan comme ni ngeen ko daan defee te bi ngeen ñëwee ambiance bi dund na bi ngeen demee ville yéen a ngi nii dellu si dekkalaat ko fii loolu sant yàlla la li ñuy wax rek mooy kenn ku nekk yaa xam ni nga bëgg si Mawlana Cheikh Ibrahima yàlla na ko yàlla jox yàlla na seen mbëggeel ci bàyyi yokku ndax ku bëgg bàyyi deseetoo dara ndax nit ki mën ngeen bokk yàlla te du ngeen bokk yonent bi mën ngeen bokk yonent bi bokk Cheikh mën ngeen bokk Cheikh Tidiane bi ngeen bokk Mawlana Cheikh Ibrahima waaye waxtu bi ngeen bokkee Mawlana Cheikh Ibrahima bokk ngeen Cheikh bokk ngeen yonent bokk ngeen yàlla tabaraka wa taala kon àndoo ci yàlla muy li wóor te Mawlana Cheikh Ibrahima mooy àndoo ci yàlla te buum gi dañ ko fas te yàlla bu mu fecceeku yàlla bu mu fecceeku waxtasimu bi hablillahi jami'an wala tafruqu te yàlla di ko wax yàlla bul tasaaroo mukk yàlla bul tasaaroo yàlla bu kenn gisee kenn looy xeebe sa ndax groupe gi kenn xàmmewul mag wala ndaw mhm. kenn xàmmewul góor wala jigéen xam-xam bi mi ngi daw waxtaan bi mi ngi daw tooñante kalante yi mi ngi daw te kenn dépassé wu sa morom lu tax loolu xool yi ñoo defaru parce que xool mooy li nga xam ne su baax yi lépp baax su bonee lépp bon te bàyyi moo jël xool yi dindi ko raxas ka tàbbal ci kalimatu laa ilaha illallah ba xol bi yëgatul laa ilaha illallah yonente ban koy rañaane xolam lu njëkk di <coughs> raxasee ko zam sam def ko si ndabu or delloo ko xol bi moo tax du mer moo tax wa innaka la ala xuluqin azim moo yonent yàlla Muhammad keneen du ni mu mel ni moom صدري منه الأبام الأنجاني صلى الله عليه وسلم شقه ثم سقه ثم أيضا بعد أذين سقه بن بساني رضي الله وهو بار العرفان سوق على الأرض ولكن عم فأم في دلاني رضي الله عنه وائد في ذات الله وصفاته وفي آل مولاه أبي الجلاني عام ست من عمره ماتت الأم مفردا بعد بقائد ميزاني فهو بعد الله الجليل الجليل والسوى القدر دام قال الدلاني بين بشرت بالحاد نبينا درا مثل موسى الكريم بعد البداني فهو بعد الله الجليل جليل تقريبا وفي دام قال الدلاني رضي الله عنه ما شاء الله كل أوبرنج جدو yonent rek moo ko am. keneen ku ñu fa opéré woon ku ne. Hmm. seen waa kër ngi tiit ci yow. wala ñu ngi lay indil ay garab wala ñu ngi xool yonent rek la ñu opéré mu di dox dem jëlal fu mu jóge woon bu ñu ñëwee laajte lan la mu ne dafa feebar dafa liw fekk dina ko doon xotti ña nga doon xotti ay malaaka la jiwul ak ñi mu àndal wuy ci ndigalal yàlla hmm. génn lumb boobu ma xam ne lumb seytaane hmm. defar ko delloo ko bàyyi nag loolu def si ñun. bàyyi rek këmal la arif illa bàyyi ko àndu ak moom doo ko xam ko àndu ak bàyyi rek mënoo xam loolu kon ñun nan sant yàlla bu baax alhamdulilah ñu yàlla boole bàyyi sëriñ bi gën ci sëriñ yi dani alquran mooy téere bi gën ci téere yi l'islam mooy diine bi gën ci diine yi yonent yàlla Muhammad mooy yonent bi gën ci yonent waaye bàyyi sëriñ bi gën ci sëriñ si ku ko wedd ku ne dangay wax lu neex waaye bàyyi muy sëriñ bi gën a sëriñ si ku mel ni moom amul kenn du mel ni moom kenn du mel ni moom vingt quatre ans nga taawloo vingt cinq ans nga firi alxuraan mhm. kan moo ko def kenn defu ko ngay firi alxuraan te yoroo téere yoroo dara mhm. kooku moom rek la yàlla may moom mhm. kon ñun dana am sëriñ boo xam ni romb na or romb na jamaa romb na loo yaakaar kon buñ ci amee yàlla boole nañu ñëpp ci ndamam ñu sant yàlla parce que lanu nàndaloo ku nekk la nga nàndaloo moom la sa morom nàndaloo te du jeex bu mukk mhm. te bato yaa ngi ñëw avion yaa ngi ñëw te ñëppay naan si ci géej gi kon ñu ñuy dëkke Sénégal yàlla bu ñu bokk Chine ba mu doon wax naan ilaa Sénégal bi bañ bàyyi bu mu nekk ci Sénégal bi mhm. amiin Sénégal démb la woon waaye Sénégal tey mhm. bëgg nañ bàyyi bëgg nañ bàyyi lool te balaa nga koy xam programme am balaa ngay xam gàmmu Medina Baye jot nga xam ne bëgg nañ bàyyi kon yéen ñi fi daje yëpp bëgg bàyyi rek la mais ci buntu kan buntu Cheikh Ibrahima Ndaw mhm. ki nga xam ne mooy Zakura Alifir mhm. waxoon naa leen que nee na mooy suukar mhm. ku ko bañ doo ndékki doo njar doo naturel waxtuma laak ngay attaaya wala ngay doos boo amul suukar boo ko si defee du saf kon Cheikh Ibrahima Ndaw mooy suukar pays bi eh, moom la ko yàlla defal kenn mënu ci dara bëgg bëgg nangu bañ bañ nangu gis nga dënn buy tudd yàlla nga ni mooy tudd déedéet du moom de bàyyi nekk ci dënn bi di tudd tukku bàyyi ni tax dem demal boo waxee rek ñëpp dégg la xeex ko mënulu ko dara ñàkk a nangu mënulu ko daal yàlla moo ko may te bàyyi jox ko ndigal muy dem ak lan nag ak yaram ak tegginam ak jox mag moo ko àggale fi mu ngeen moom dàqu fi waaye may yàlla àndal ak yar jox nit ñi ñu war a jox cëram loolu tax mu mel ni mu mel kon bu nu amee yar ñu nit am teggin joxe cër yàlla dana may lu ñu bëgg wolof njaay dafa lu la yar mayu yara di ko dul ak may bàyyi moo di wilaal wax na fii daaw benn solo mu nit dana bañ ba bañ li mu moom ñu ne ko luy loolu nit dina jur doomam moom ñun nit dana nangu ba nangu lu moomu ñu ne luy loolu li muy nangu moomu ko te dina ko nangu kon nanu nangu sukk nu nërmeel doon ay taalibi nanu doon ay taalibi ñu suufee suñu bopp ñu wàcce suñu bopp ñu xam ne ñun ñii rek mënu ñor leneen ñorul ñu jox ku ne wàccuwaayam su boobaa rek dinañ noppalu suñ suñ ko defee duñ ngir lan Cheikh Ibrahima la mi nu yàlla boole dañ ko ñaan yàlla gudd fan ñaan ko yàlla wér ndax royukaay la de mhm. royukaay la bu mag ñi nangu mhm. toog ngeen gàmm yi ñëpp ngeen di seetaan muy sikkar mhm. papa Cheikh di yëngal bopp imaam di jaayu kooku la muy wax bu satul woon ñoom duñ ko nangu ndax pays baay bii ñun ñett ñëpp xam nañ fi par parloo tegu fi kenn sant tegu fi kenn xam-xam moo fi taaj nit oustaz moo Niang président Sadine bu nar ba ko bàyyi di yóbbu mu jàngi sax ñas nekkul tijaan boobu murid la ñu ni ki jël pee ñu ni murid la bàyyi ni sama nekku ci murid ki jàng laa wax ñu yóbbu ko mu jàngi bàyyi mi ngi ko doon préparé boobaak léegi mooy président Sadine Ndar kon bàyyi xam ne yàgg yàgg dana ñëw ndax dëgg kenn ko gis di nga bañ surtout boo amee xam-xam ba pare nga dugg ci bàyyi boo accès di nga xam ne kii mooy dëgg te dëgg fa la bàyyi yem ci dëgg kon nañ ko gën a jàppale su ngeen gisee mu leen di mobiliser ngeen ñëw fekk si ka dangeen koy fit gën may courage parce que ku xool ñi ñëpp ay soppe si Ibrahima Ndaw mhm. ku ko def dara wala nga narka laa di nga arrière daani ah kii kat am na ay dag te buur ba amul dag moom yomb la engagé waaye kii ku xool dagam yi pour nga engagé ko du yomb si suuf ngay wax waaye doo ko parce que xam nga ni ñu ngi topp ci ginnaaw ku ko jéem xam laajal ñi ko jéemoon laajal ñi ko jéemoon daaw jéem mhm. soreetul de parce que dañu yaakaaroon xëy na kuy nelaw la rek waaye rek sant yàlla kon ñu ngi leen di ndokkeelaat bu baax si bis bi te yàlla bu nekk seen mujjante amiin amiin ñëw képp ku fi indi aaju yàlla ko yàlla faj gàmm gi yàlla na mel na comme jigéen ñi li leen dal fi ñëwoon daaw ñëpp sëy nañu góor ñi fi ñëw ñëpp yal na yàlla may jabar ñi am liggéey yal na yàlla yokk seen liggéey ñi am wërsëg yal na yàlla yokk seen wërsëg amiin yaa rabbi amiin ñi feebar yal na seen feebar amiin yaay amiin ñi jàng yal na yàlla may diplôme bu kenn tardé yéen ñëpp yal leen yàlla jox te yal na a gëstu amiin yaa rabbi yal na leen yàlla teg loxo yal na leen bàyyi boole si taalibe bi ñu ci yal na ngeen nekk dëgg dëgg taalibe bi amiin yaa rabbi te waxtu bu ngeen ko nekk rek tekki te incha allah yu allah yu ñëppay tekki tuxu leen naanu leen sàccu leen njaaloowu leen julli lu yoon di ngeen tekki di ngeen tekki jub rek kese waaye yooyu moom boo koy boo ko deful rek dëgg sa bopp moom di nga tekki te nit ki bu gëmee tekki rek tekki bu gëmee tekki rek tekki ndax li naan soo amee bayre ñii diwam la bayre de waaye waxkat bi dafa déedéet bayre du bayre bayre yi fexeel sa bayre mooy nga tekki yàlla ngeen tekki yi ci barke amiin yaa rabbi sallallahu alayhi

jour de la résurrection, comme Dieu l'a si dans le Coran. Ce jour-là, l'homme sera informé de ce qu'il avait accompli au début à la fin de sa vie. Ayant l'acceptation, la soumission, intriyat, la véracité, l'amour, muhabba, et la sincérité, ikhlas, pour ensuite connaître, car la connaissance est au-dessus de tout. Alors, Nous disons Dieu Baïnès, car il nous a expédiés dans l'association qui, selon lui, est plus discrète que la marche des paumés dans le noir, et ceci par la seule voie, la tabia. Mazalik Ibrahim radiallahu ta'ala because we say Gamu Famalo, but that's not Gamu Famalo. It is a Gamu of Mawlana Shaykh Ibrahim under the control of Kalimatul Quran, under kooku maqaamam la nañ ko ko jox di gis mawlana Soubrahim Seck faltaj annana izzat itaadika alkarimi kala maati ila riyaika alazim really this has become the manifestation through the person of this wonderful woman and today this day is dedicated to the one who is called Mam Abdou the one who has written Al-Salati but the one who has said بسيط الشمس علينا والجليس المتلالي And at that time, the Pharaoh hadn't come yet. It was six years before the coming of the Pharaoh. So if Mount Abdunyan was able to see by six years later, it means that he knew by before he comes on earth. So it really means that Maulana Sheikh is not somebody that we have to follow for our jism. It's not for our body, but it's for our soul. And you know that well that soul is more important and more explanatory than what is called jism. So I would like to say thanks to the one who has taken us from darkness to brightness, and that's Mawlana Shemraim buying us. Abu Ishaq Ibn Elijah Abdullah Al-Kawlaki Al-Senegali tijani والمناطيف فما الحلو في الدارين لا وصال وكل سوى هذا رياح عواصف فإن لم أجد تقبيل كف محمد فما لذ لي عيشي وعمري يتالف وهل يتأتى حب غير محمد فحب سوى الماحي عمايات والفسق رضي الله عنه إخوتنا الكرام السادة والسيدات آباء وأمهات الأجداد والجدات ذوي القربى ضيوفنا الأعزاء نتشرف من حضوركم من شتى القبائل وفد بعد وفد جماعة بعد جماعة نحييكم كلا منكم باسمه ووسمه قلبا وقالبا بتحية أغلظ التحية وأنجبها وأرقاها وأعدلها ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آمين ومن شر غاسق وقبر آمين ومن شر النفاثات في العقد آمين ومن شر حاسد إذا حسد آمين يا رحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس آمين إله الناس من شر الوسواس الخناس آمين الذي يوسوس من الجنة والناس آمين يا الرحمن الرحيم صدق الله العظيم آمين وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم آمين ونحن على ما قال أبو ومر من الشاهدين آمين وارحمنا بالقرآن الكريم آمين وانفعنا بالعلم والذكر الحكيم آمين لنا حجة يوم الدين آمين وانفعنا بما صرفه من الآيات آمين وذكرنا بما صرفه من المسؤولات آمين مجيب الدعوات آمين فإن فضل رسول الله ليس له حد فيضرب عنه ناطق بفمه لولا تبقى قدره اسمه حين يتعدى لسلمه نمتنا بما سيقول به حسن علينا فلم نفتن ولم نهم آي الورى فاغمى له فليس يرى للقلب والبدء في غير منفحم تشبه الحر للعالم من جود صغيرة وتكل الطرف من أمامه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته كون يم تسلم عنه بالحلم قبله العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم ماذا الذي مساق ومن له الحسن فقط محمد الهادي الذي جبريل هضر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بالقدر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بالحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بالحجر اللهم صل على الفاتح طول بني رجال براءة الاستهلال ومن خاتم يطلب براءة المختم والكمال اللهم صل على سيدنا محمد بحر أموالك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعن مملكتك وإمام حضرتك واقتراء ملكك وخدائن رحمتك وطريق شريعتك المتردد بتوحيدك لسان عن الوجود وسمعي في كل وجود عيا يعني خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى بقائك صلاة لا منتهى لها دون علمك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعن والدينا امين يا رب العالمين لسادة من انسهم أقدامهم وخزبا إن لم أكن من أوفلي بحبهم مهد الوداع وبجاههم وبعزهم طيب لنا عاش الحياة واختم لنا بالخير يا من لا لنا رب سوى تهنئة الربيع بملحة الشميع بالمنطق البديع أقضي بها مؤملا تهنئة الربيع بملحة الشميع بالمنطق البديع أقضي بها مؤملا جميعا منطق العودي عين بها مليء أهلا بشاه المولدي شهلنا والمدني شاه النبي أحمدي شهر ربيع الأولى شهر ربيع بمنهجي سبيع بمنطق العودي عين بها مليء المصبر ربيعي إذا لك الربيعي بالله وجميعا بكل خار معضلين أبو ربيعي بمدحتي سبيعي بمنطقها بديعي منطقها محمد شيء البلاء والسرور شيء به سجد هو الشيء بين الشهور متوج مكلل يعني أبو ربيعي tó bá wà bí àṣìṣe. moom la bàyyi da wax ne mawaahibu rabbil arsi taaha muhammadun wa axmatuhu wa huwa rahimun fakrima basirun nadirun muqtidun wa huwa kaasirun jawaadun karimun baaqun kafi munayma muqtaba aminu وهو في رشد مجتمع حبيب إله العرش برد ومحتمى صلى عليه وسلم ملاك إسحاق teewere juddu boobu moo tax baay waajaral la laahu zumma tadalla nuuru kulli nujuumi min taali sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy juddu weta yaayam dégg day moom lañ konti rek mu dalle ca péeru dalle sa ko ay tànkam lii dalle ànd ak leer ànd ak deret ñu ñëpp xam ne ñëpp kuy juddu boppam mooy jiitu suuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy juddu ay tànkam ñoo jiitu ba mu ñëwee dafa sujjoon moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahumma rafiqal ala dégg nga loolu la Ousseynou Ida wax wa marma ayni mashaa'in loolu laalaaw sallallahu alayhi wa sallam xol bi dëgg dëgg fii ndax bàyyi ko waxtu wax ci mbóosóor kon nag loolu sant yàlla yéen waa beneen teraanga Cheikh Ibrahima Ndaw ndax xam na kuñ gërëm la kuñ gërëm la Ibrahima Ndaw kuñ gërëm la mu ñëw fii di leen defal gàmm depuis lu jege fukki at dëgg-dëgg ku kawe la yàlla yàlla saxal ak moom ndax nit ku baax la nit ku yaatu la kooku nag boo ko amee danga koy fonk da xam li nga am bàyyi benn ziyaareem ñun ñëpp dégg nañ ko ci benn bàndam muy wax di wax ba ci yàgg mi ne bu ngeen xamoon da ngeen xam ne yéen damay tënk wax ji rek mi ne yéen may waxat xam naa ne da ngeen xam ne beral nañ leen loxo waaye mi ne karaama feeg woyu duñ ko waxtaanee duñ ko gaaw a waxtaanee Aliou Diagne teel naa dégg yëf yi mi ne yàlla bum gaaw a woyi ndax xam ne ne moom la mooy may gi kon nag boo amee yiw rëy yàlla may la ko tey jii xalifa bi bu teewee te muy Cheikh Ibrahima Niass ñëpp toog ci bayaanu Mawlana Cheikh Ibrahima ñu si gannaaw kàddu ya liñ fay déglu ci zikkar Cheikh Ibrahima Ndaw bi moo koy jiite kooku nag di toog ca pee Mawlana Cheikh Ibrahima ca digg fa daan mag ñi di ànd ak bàyyi di toog kooku ñëw di toog fii ci Ndar dox lu ma trois cent kilomètres ñëw fii toogal leen di leen gàmmal ci noonu Cheikh Muhammad sallallahu alayhi kooku boo ko amee danga koy fonk teraanga la karaama la waaye karaama gi teraanga gi yàlla bu ngaa woy ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa nit ku baax la mbaax rek jar na euh, da ko xamee ci nit ki ci xar-xaramam Ibrahim doo ko gis mukk gis mu mer bu meree sax du ko wan doomu aadama looy njëkk gis ci moom rek mooy foo jàkkaarloo moom rek yaa ngi gis macha allah macha allah bañ ñu rafet yi mu reel la waxtaanal la boo ko defoon lu bon sax yaa ngi gis xar-xaram bi tàll te xar-xaram bu tàllalu loolu buñ ko bu ko kenn xeeb ndax bu xeeboon rek suñ sëriñ Mawlana Cheikh al Islam Hadj Ibrahima Niass du dem ba jar way ci bayti way ci bayti ci xar-xaram la zamani talqul wajhi gayru mukaddirin waaw sama jamono man Cheikh Ibrahima Niass sama xar-xaram bi dafa booy foo ma gis rek yaa ngi sama xar-xaram bi leer nañ bàyyi ko zamaniya talkul waji xayru mukaddiri loolu ko may mi ne aruxu wa aqdu daa iman lan mukammada bàyyi mi ne damay gontu di xëy toujours rek di dem ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax duma jàpp mu waxaali sabuha inda afdalil mursalin umam bi rasulillahi lam may na ko ko am na tàllalul xar-xaram waaye man naa kaa jox ne aroxu wa axdu daiman lan ukammada ah, damay gontu di xëy toujours rek di dem ci yonent bi Ibrahima Ndaw bu xëyee bàyyi lay xëyal bu gontee bàyyi gontal jamono yëpp ci loolu la nekk ñu ngi yàlla yal na yàlla guddal fanam yàlla may ko wér mbaax rek jar na nit ki mën naa may lu ne waaye maye sa daraja dafa jafe te yàlla may na mu may mën a maye darajam xam nga sëriñ bi toog Cheikh Aboubacar yi macha allah lu suñ bàyyi Moodu Wilane wax léegi nga gis ko ci moom dëgg-dëgg ah, Cheikh Ibrahima Ndaw mënoon na wax ne man maay mawlit ndax xam nañ ne mawlitam neex na ñëpp koy foglu am na ñoo xam ne mawlit Cheikh Ibrahima Ndaw jaral na la ñu daw juróomi téeméeri kilomètre man de ci laa bokk waaye bi mu gisee sëriñam toog Cheikh Aboubacar mu xam ne. baayam moo daan def lii ci kanam magam Cheikh Alxaaj Abdoulaye bi mu yëkkatee micro yi ba jox ko man foofu laa ne kii daal mbaax moom mooy mbaax rek mën a yëkkati sa dara ji jox ko sëriñ bi na baayam daal ba Cheikh Aboubacar yàgg naa mawlid waaye mawlid bi mawlid ndar fii mi ngi koy soogu mawlid waaye Ibrahima ndaw xaal bi mu ko ko joxee ak bi mu ko jëlee la waaye li suñ bàyyi Modou Wilane jox la tey Cheikh Aboubacar fàttali nañu lu bëree bëree. waaye loolu yëpp Cheikh Ibrahima Ndaw mooy ku ko génne yal yàlla fay la yal na yàlla guddal sa fan yàlla may la wér yal la fi yàlla yàggal ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëggal nga ndar lu nekk bëggal nga waa ndar lu nekk rawatina sa jigéen bi muy Seyda euh, Fama ñu ngi koy ñaanal yàlla yal yàlla guddal fanam jigéen la comme ni ko borom xam-xam yëpp waxee ne bàyyi wax ne yéen jigéen ñi jug leen rëj loo góor ñi الذي من علينا بوجود سيد الأولين والآخرين الذي قال تعالى في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أتيت بليلة سهران مرشدا لذكر الذي قد طاب بدءا وما لنا سلك الرسل ختما مقام واجتهدنا لعمل إحساني وانظر إلينا وانصرن الدين أدي حقوقنا وأدي الدينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وجاز عنا كل من قد أحسنا إلينا من رب الجزاء الأحسنا بالمصاب الشفيع يوم المحشر خير الورى نبلت حبي بالكوثر صلى عليه ربنا وسلم وفاض بخير لنا وعمما صلى عليه ربنا وسلم وفاض بخير لنا وعمما صلى عليه ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما